Boun Dionne n'est pas candidat de benn. non Boun Dionne dama lay wax lu gën a. ni candidat de façade dama lay wax lu gën a dee. oui <clears throat> Boun Dionne Sall mais pour le moment. non dafa non attendez rek. non non sëriñ bi daf leen ndànk rek bàyyi leen di jéem a semer ay confusion ci bopp Sénégal yi. y' a pas de confusion. Boun Dionne Boun Dionne ci manifestam Macky Sall la cité en préambule. Boun Dionne il peut pas faire de la candidature sans l'aval de Macky Sall. quelqu'un fait des statuts de Boundione on le débarque non attendez attendez attendez le DFC le cercle restreint le cercle de Boundione ñu ko wër ñëpp c'est des gens de Benno Bokk Yaakaar non euh, mais attendez presque non mais attendez euh, li may wax ni loolu loolu yéen ñëpp gis ngeen ko non non imam bilaay bokk c'est pas ça entre c'est-à-dire Boun Dionne dafa rebifé wu il a été créé par les officiers du palais. te gis nga li ma leen di wax ni ko doyen waxee Ahmed Diallo loolu mooy bokkatul bokkatul non mais moom Birima Mangara ak ak Aly Ngouille Ndiaye bokkatul ko s'il ñu ko waaw bàyyi leen ma rek man li may wax ma loolu laa gëm de toute façon ah. sur le plateau de Pam Ngagne xam nga des journalistes ont voulu nous faire comprendre que moo moom Macky dañoo xuloo dafa wàcc alxuraan loolu amul dafa wàcc alxuraan ne xuloo amul. non dañu bëgg a xuloo ils ont voulu tam ñu toog naan dafa tàng jër. mais mais mais attendez attendez bàyyi leen li ngeen di def.

y a que Amadou Ba ki est candidat qui a un directoire de campagne qui préside une réunion de conseil des ministres décentralisé dans le nord. et dans le centre. non attendez rek attendez au même moment les autres candidats yaa ngi dégg mais actuellement la présidentielle la date a été retenue ak ce que ce qui est de vivre Pastef ou bien l'ancien l'ex-Pastef c'est son mm-hmm. mais loolu. ana ana ana ana ana ana kii bi ana égalité bi. mais béréb de recours en recours. mais finalement mois de kii. mais béréb soleil bu pare ne day am nombre bi. non yéen li ngeen préparé. loolu <laughs> li ngeen préparé mooy tous les toutes les candidatures qui sortiront des flancs de Pastef fas yéene wu leen ñu nekk candidat. non de bu ñu amee parrainage non def leen nag rek. li ngeen toog ñu ngi léegi mun na am ah, parrainage. loolu la loolu je combattrai ça. parce que lay si su ma ci am. yow yow da nga non non non la question n'est pas ça Mansour. xam nga même li ñu naan. mais docteur docteur la fa baal a pare. yéen li dal parce que da ngeen ci sant yàlla bàyyi leen li ngeen di def bàyyi leen li ngeen di def xam nañ taxaw bañ dara. bàyyi leen li ngeen di def xam ngeen yéen fi mu nekk sama si fay déjà li mu def. c'est des convictions de personne. parce que ñoom jàppoon nañ ni Pastef est déjà transformé en cimetière da yoof mhm. wallaay nax nañ seen bopp ah. yaa ngi dégg mhm. li xew nii mooy lu ñu fogul woon waaw Ziguinchor moom mbetteel bu rëy la mhm. mbetteel bu rëyee rëyee rëyee la ci am yuuxu dina ji fuñ ko foogeel woon de on est d'accord léegi nag ñoom présentement lay doxee ku nekk na jéem a am dëgg rek la stratégie d'isolement dans le passé quoi li ci waroon topp mooy la cimetiérisation de Pastef suul leen mu féete boor ah, yaa ngi dégg ah, ça n'a pas été une réussite pour eux. dafa mën nekk mën nekk saa yi ñu jël dissoudre ko on dissout pas des idéaux. mais mais mais mais imaginez quelqu'un qui a 26 députés nga ne da nga dissoudre parti. muy taxaw ci tribune assemblée nationale nga offrir. la wax mënoo ci dara te mënoo ci dara mu lay xeme foofu. c'est ça de moo tax affaire bi di pas a eu un boobu dafa mooy. non dafa mooy. tas Pastef. non moo waraloon bëgg dissoudre assemblée. waaw. après mu recevoir say député waaw loolu wax naa ko fi. mu recevoir say député moo waraloon bëggoon F57 bi. waaw c'était pour après Pastef du existe ak ay député boobu député Pastef yi lañ doon liggéey. parce que amul lenn lu ñu gisee woon tas assemblée bi. loolu loolu il fallait tout faire pour que la liste nationale pour que la liste titulaire waaw doyes ne passe pas parce que avec sa couverture parlementaire. Mhm. day tax yii nii yëpp. du am du woon yombee ni ñu ko foogee. Mhm. yaa ngi dégg donc il fallait tout faire pour que sa liste nationale ne passe de toute façon Ahmed Diallo li xew Sénégal man bu dee mës na am man bëgg naa historien yi ñu génn wax ñu kañ la xewoon nan la xewee woon. je vous donne exemple si vous 88. cas bi ju pare de jeunesse malsaine. Mm. dernier meeting bi mu tasate place de France moi je suis de Thiès moom ak Ablaye Wade. Mm. ñu empêché Ablaye de tenir meeting. fexe ba wër vers dix heures dem minutes jóge fa dem Kayar Abdou Diouf indi toute sa soldatesque avec la LGI moment boobu la ñu wax bi mu paree ni c'est bandit de grand chemin je vous ai à l'œil Ablaye Wade jikk Dakar ni je plains avant ñu joxe résultat yi Ablaye Euh, Pite Amath Dansokho bàcci lenn ñëpp dugal la ñeen ñuuf lu gën a garaaw loolu. loolu daal di situation sans précédent nga ni lu mel ni mosoo koo gis. amul lu mel ni loolu yow génn wu résultat génn dara on les a mis da ngay delloo Sénégal ginnaaw attendez attendez da ah, ngay delloo Sénégal ginnaaw non non kaay mbaa dikk historien moo ko woon historien da nga ni historien yow moom dafay delloo Sénégal ginnaaw Abdoulaye Wade loolu doon xeex ah alors c'est-à-dire voilà au Sénégal depuis cinq ans bu ñuy dem élection xam nañu ñaata candidat ñooy bokk. xam nañ à peu près ñaata. ok pourcentage bi ñuy am. loolu mos na am ci réew. non loolu mosul doon la permanence de l'APR. pour dire que de toute façon duñu meesu juróomi candidat wax na ko wala boobu tam ànduma ci. de toute façon danañ gagné nangam pour cent. loolu kan la boo loolu ça ça c'est de mais mais nag maa ngi koy la probabilité non non dit ça c'est vrai de toute façon li may wax nii. question yi may posé. ci arab mu tuddee istifhamu ta'wil c'est-à-dire laaj laaj ca boo xamante ne ñun ñëpp am nañ tontu. sa waay li xew Sénégal sëriñ bi c'est une honte. mais 230 c'est une honte aussi. waaw ñoom ñoo ko créé ñoom ñoo ko bëggee noonu. ñoom ñoo créé yooyu. attendez attendez attendez. non arrêtez. gars yi foofu yaakaar nañ Sénégal mën nga fee falu par hasard comme Pastef loolu la comme comme gars yi dañoo nekk ay ministre ki maire ki du moins astafurlah ay député ki maire par hasard tout un Sénégalais pense yow gëm nga yow élection yi ñu jëm nii les vrais bons candidats nañ ci bokk yow gëm nga loolu non mais les vrais bons candidats nañ ci bokk mais ñu am mais Idrissa Seck ceux-là de qui peuvent euh, créer des problèmes au candidat de Benno yow jàpp nga ne mais Birame Souleye dana ñëw ak nit ñi Birame Souleye quel est votre problème quel est votre problème avec Birame Souleye mais Birame Souleye te nekk a lan moo tax bi bi ndax Birame Souleye mënut a pare certaine seen discrétion non daf leen dànk rek certaine seen discrétion bi ñu jàppee ne bi ñu jàppee ne ah. alternative lan moo tax ngeen def jonction mm-hmm. jonction de quoi ah avec ah, l'affaire Sonko waaw c'est ce qu'on appelle les assimilés et non non non non kii politique mooy c'est lui qui est derrière ces bracelets électroniques là man d'après information. waaw yéen da ngeen di supposé rek non ban supposé on est là. ngeen di supposé rek lu ne ngeen supposé bu yàggee day bari. attendez de toute façon. de toute euh, façon. Euh. major Kandji. Euh. franchement. xam nga man kan la plaindre. le prochain président de la république. waaw du waaw. parce que conditions yi ngeen bëgg organiser élection yi. moom bu ci faloo. Hmm. benn man gisuma ci taux de participation bu am solo.

non yéen a songaate. non kenn seen non déedéet man li mais mais lim la. les gàtta gàtta la yéen a songaate de attendez attendez rek yéen bien avant le gàtta gàtta le gàtta gàtta c'est le pacte non arrêtez le gàtta gàtta c'est le pacte de janvier 2023 à Kër Massar. Ah. c'est récent ah. de Kër Massar. Mm-hmm. bien avant le gàtta gàtta yaa ngi dégg. Mm-hmm. ba pare le gàtta gàtta c'est pas nouveau. le Garça Garça a existé au Sénégal avant 1960. d'accord on est d'accord. mais mais le Garça Garça est toujours en cours. le Garça Garça n'est pas nouveau. le Garça Garça est mort de. yow Mbeth baa lay yëngu yow yow moom soo waay nga dama lay. bu dugal la ci néeg tëj la. bu doo génn doo génn gars yi di di nga yàq quoi du ma bëgg di nga yàqu yow. ba pare aussi de ba pare aussi politique mais le politique en fait la politique mais c'est discours. c'est ça. c'est le discours dañoo ko jàngal mais nag euh, mais boo xam ne il n'a pas le discours il n'a pas le charisme euh, mais kan la mën a attirer il n'a pas de l'attraction ah, on est d'accord donc le gatsa gatsa c'est un pacte récent mhm. ba pare dafa am lu ko jiitu aussi qu'il faut mettre en opposition ou bi en corrélation c'est solo de toute façon fi may daanelee mooy major Kandji non sérieusement ñi ngeen mën a delloo si seen xel da ngeen bokk kan non dellu si leen seen parce que vous allez en fait on va plaindre après le président qui sera élu man fan lay jëlee légitimité. boo xamante ne bii de créer un bazoum. non mais Niger Niger après mais mais mais ñoom ils veulent créer leur propre bazoum. c'est-à-dire quoi. de créer propre bazoum. xam nga xam nga man li a mais loolu de le Sénégal n'est le Niger. xam nga xam xam nga c'est démocratique on va élire Amadou Ba démocratiquement. c'est bon Amadou Ba su amee 20 pour cent jàmbaar la. Amadou Ba Amadou Ba gën a am 60. 20 pour cent su ko amee jàmbaar. 60 lay am. ñu bàyyi si alors ñu bàyyi si Mansour Faye comme faire une ingénierie électorale. la même rek am naa ñu koy ñu bari 60 Macky Sall bu <laughs> dee waa terre bi ngi jéem a téye Sonko naan yow tegam patron ba Macky Sall moo am mënul am 60 amul waa fu muy amee daf may retardé ñoom parce que waa Pastef bi ngi ñëw foofu ñu ma terre bi jéem a téye Sonko ñëw attendez daf leen nag yéen non mais non je veux qu'on soit vraiment yow da ngay rêver docteur ah déedéet dégg nga docteur ah, en fait tu fais des cauchemars hein eh je fais pas de cauchemar yow sax da nga ñëw léegi ñu bàyyi ko mu daaneel si je veux qu'on soit beaucoup plus réaliste uh-huh. prime au sortant bu ab du ah. prime au sortant. prime au sortant fort la. Ah. il a eu quarante pour cent. Ah. Wade prime au sortant faible la am boo xamante si c'est traditionnel. il a eu trente pour cent ñaari yoon. un euh, Amadou Ba boo xamante ni bi ëppul charisme Abdoulaye Wade. c'est ça la vérité aussi quoi c'est-à-dire nañu dëgg quoi. mais ne avant-hier ici. Amadou Ba gañewul parcelle. bi muy def sa rentrée politique c'était devant moi Amadou Ba amul lu mu yëngal parcelle te couvrir ma ko. c'est il n'a pas un charisme de divin amu ko. ça ça c'est grave quoi. on est d'accord prime léegi parce que le coefficient personnel de Macky Sall c'est un couteau à double tranchant mën na ko defaral ko mën na ko yàqal. bien sûr faisons très attention. comme tout le monde te da parce que Macky Sall aussi. tous les Sénégalais ont mais Macky Sall ah, non non il est plus proche. jox ma say statistiques yu wane ne tout le Sénégal. maa ngi lay déglu non non non c'est que ce fait là. maa ngi lay déglu daal dafa yomb quoi. jox ma ban sondage gi. le Sénégal yéen xibaar yi de bàyyi leen ko man ay chiffres mais revenu critère revenu critère gis nga ngeen di technique nous allons sortir et nous allons faire harakiri parce que yéen li ngeen di c'est de la météo politique day def gisaane gi alors que ñu xoolal on a fait le Sénégal bon Bamba Tribord et de Sisak à Diawara non moi je parle pas de ça euh, gis nga Macky li mu def ci réew a eu cinquante totalement contestable. Ah, waaw mais ñun ñëpp yow totalement contestable. ni la faayee pour yow. mais deux ans après deux ans après il a failli perdre le pouvoir. il a failli perdre le pouvoir. non mais allez-y allez-y allez-y vous devez faire par préparé ba rek xam ngeen du ngeen bëgg du pré apporté électoral comme li kii sol pré apporté pré apporté électoral ngeen mais fan lay jaar sénégalais xam nañ ne Amadou Ba est la solution dans cette solution solution quelle solution vous vous discréditez à la télé quelqu'un qui a été le ministre de Macky Sall tous les non tous les tous les mauvais résultats là sur le plan économique yaa ngi sont ont été réalisés avec la magistère de Amadou Ba il a provoqué le développement mais mais non allez-y allez-y c'est une gymnastique intellectuelle électorale li may wax nii dama ko wax bés ministre moo ma un ministre m'a dit carrément li nga wax ton analyse elle te kooku ki ma woo en 2012 quand bële la bokkoon mu ne ma li nga wax ci prime au sortant nit mënu ko weddi sëriñ bi est-ce que xam ngeen benn affaire xam nga la moo tax Amadou Ba il est mais c'est parce que amul base électorale on va ma on va m'opposer Abdou Diouf mhm. mais Abdou Diouf ah, dafa nekk premier ministre ba pare dem outil Louga Louga bien sûr c'était un sondage Louga ça est dans les archives Louga c'était lui on est d'accord il de gens me parlent de Senghor beaucoup de gens aussi ignorent que ne Senghor il a été maire de Thiès Thiès la déparé uh-huh, Thiès il avait son fameux bureau là voilà et cetera bureau boo xam ne bi mu fa jógee bon pour des trucs de superstition après nit ñi nanguñu ko woon occupé mhm. ba taalati léegi mu ñëwee il en a à un guide religieux mu am lu mu fa def après mu occupé ko donc euh, Senghor Thiès la départ Macky Sall mhm. ñëpp xam nañ son passé municipal Wade a été bâti par Mamadou Diop maire de Dakar n'a jamais été maire de Kébémer et devenu président deux fois def leen ndànk cette alchimie ne fonctionne pas non non Wade Wade c'était un leader national il ah, avait une base Amadou Ba a été maire de Kébémer bâti par Mamadou Diop maire de Dakar Amadou Ba il a hérité le premier la première mairie opposition il a déjà dit ensuite Dagana léegi s'il vous plaît ñu bàyyi ko je te jure vous aurez la surprise avec Amadou Ba non kon ingénierie électorale mais negal ba portée électorale ma ne vous aurez la preuve on va revenir ici avec Diallo. après le 4 de toute façon. le jour du 4 avril 2024 ñu préparé. de toute façon inchallah bu ñu le parcours du président Macky Sall. Mm. son passé de gauche. il a mm. fait de de l'AJ. def avril 2000 laa ko noonu laa ko mën a waxee parce que avril 2000 defe naa lañ ko nommé DG wu Petrosen sëñ bi ba 2008 ak fonction yi mu occupé yëpp jarul ma ci jaaraat. wër Sénégal ñetti yoon Macky Sall naa eu que pour cent bàyyi leen li ngeen di dugal ci boppu sénégalais yi. déet dañ ko ci dugal. le délai est tellement court que Amadou Ba ne peut pas faire tour du Sénégal intégralement en cinq mois. c'est pas possible. mais on va faire. analogiquement numériquement systématiquement. géométriquement c'est pas possible. est-ce que vous avez suivi non s'il vous plaît s'il vous plaît. je dis au c'est que les ministres les autres avaient. ça fait plus que ce que Macky Sall avait et ce que Abdou Diouf avait. d'accord est-ce que est-ce que xam nga lan moo dëggantaan man à l'analyse hmm. pure li tax ma jàpp ne Macky Sall duñ euh, koy waxatee. il fallait mu changer gouvernement ba pare mu toog diir doo génn la liste du gouvernement il fale des gens yoo xamante ne dina ko wóor nit ñi sur le terrain parce que le choix de Amadou Ba est totalement contesté am na ñu def ay post le président comme il a tout plus que les renseignements il se dit bëri na ñoo xamante ne def nañ post et sur le terrain yaa ngi dégg li ñu wax duñ ko jëfee mm-hmm. surtout nag ñi nga xam ne dañoo noppi te xaw ma lan la ñu naan ce que je vais faire je pas dire que ni damay mettre en place un gouvernement boo xam ni ils vont faire acte d'allégeance à Amadou Ba mais ils vont pactiser avec lui boo xoolee ñi nekk ci gouvernement bi yépp comme vous le savez il propose mais je sais que Macky Sall a déjà sa liste yaa ngi dégg des gens yoo xam ne dañ koy favorable léegi nag quand sera t man surtout de son coefficient personnel parce que man tey Amadou Ba man je pense que ni il a au-delà des opinions li nga xamante ne bii peut-être voilà euh, moom de par son parcours il a su créer ça il a su capitaliser ça mais Amadou Ba il de de de de de de de limites fi may daanelee. mooy en juillet non en mars deux mille mars deux mille mars deux mille seize après le référendum 62 pour cent 62 virgule 7 pour cent pour le oui il nous avait demandé de faire un inventaire aux Parcelles Assainies le devoir d'inventaire ou bien le droit d'inventaire comprendre nga mm-hmm. mu ne six mois après daf leen inventaire suite à des propositions sur l'emploi des jeunes sur l'assainissement aux Parcelles Assainies mais nañ dellu foofu def inventaire ñu xool ba xam